chef. rouge yàgg na bégal Sénégal ci qualité jënd meuble fii ci tapi rouge day neex ba doo waxaale. loo soxla ci électroménager ñu jàppale la établissement takku liggéey góorgóorlu Diaw et frères Diaw et frères yaa baax kenn du yow. Dans leen jàmm établissement Takuligé, liggéey góorgóorlu et frère. commerçant Boumak Bango, les plus lu import export rawatina immeuble, ay meuble Yenwa wa Zac bu mbaaw yéen Azur lépp lu ngeen daan jëggaani biir dakaru, sur la fii soxlaatul ngay d'Idem di dem ndakaaru soxlaatul ngay paas di dem fenn lépp loo soxla am na fii livrer matériel électrique électroménager wala salon salon yu mucc ay salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yëpp am nañ ko ci qualité supérieure nag dañu lay jaay salon ba noppi jox la table jox la moquette jox la pot de fleur xanaa ay wax day jeex lii de boo demee ndakaaru doo ko am yaatoowuñu xol noonu ni ñun matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la ñu lay defal seen mbokk émigré nekkoon Espagne ñëw investir fii ci Sénégal ne day jàppale réewam di góor góorgóorlu képp ko xam ne tamit am nga salon bu màgget Paré nañu pour nga ñëw duggal ko ñu jox la bu bess dañoo paré pour dimbali leen mën nga ñëw ñu jox la salon nga dugal moitié li ci des nga fay ko ndànk-ndànk xanaa kay ñun gor gorlu xana kay ñun ñoy dimbali njabot gi xana kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu dee télé yi tamit noonu garantie dong lañu lay laaj livré le ko à domicile place bi mi ngi nekk Sicap Mbao ci rond-point EDK bi ci ginnaaw hôpital bi villa numéro 923 jano ak mosquée vert blanc woñu ci 78 02 12 84 75 wala nga 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 livraison à domicile Kër Massar ak li sur le lépp soxla ci salon loo soxla ci électroménager ñu jàppale la dimbali le taxaw la établissement takku liggéey góorgóorlu Diaw et frère Diaw et frère Bikini Production remercie ses partenaires. da nga con quoi li nga bu xuree noonu la sa xel mi toll fii dafa naq day xam pourtant envoyé naa sama géolocalisation ah yaa ngi ci koñ bi waaw d'accord xaaral ma génn ma xaaral njaga njaga laay njaga man dafa con njaga kañ la ñëw Sénégal te man yëguma ko dama la fàttewoog maanaam manam ñu bokkon vol. no yow yaa baate nga yow ñu war won ñëw Sénégal boobu ba tey taw xomako man ak Diaw kan nga non ma. sama dom ju bax joju waaye léegi yëngu na ñëw na jeex na. bu accès ne ko na fekk ci biir neeg bi dama ko soxla. ya way lan la. la doy ñaga yaay. ñaga sama nawle la am na loo xamante ni waruma ko xamal bu dé jabar bi motax ngay wax paré ko bu tak jabar. bis mu paré pour tak xolal duma ma Jean duma ma yëgal Paul man ma yel sama décision bop duma ci xaar kenn xolal bu kenn tek pression bu kenn tek pression yaay bo japp ci rek japp ci rek. yow ponkol mu toll yow plus de 40 ans nga naan takkaguma jabal sumay tak jabal jabar piiti patata yow lan la yow si le train ne marche pas do mako wax. man sa yaay la sa coach la ñu teel ko lijeenti yaabo boobu dama ñaan jàmm. ah lol du jam li kay du jam ah jam la kay. fonkal ko bu ñu leng li ko yalla may nga wax naan. ay ay sin na man nak ma ngi sant yàlla. te ah. xolal fatte xaju fi té nak yaay boy ku dobe ray sama bo gisé ñu da ngay daw sama kaw papa fatte xaju fi ha bok fatte man fatte jigen ñi wolu ma len ñemew ma len te duma dugg ci ñoom te tax sama jabar ku gudul fan deug do ko fekk may ma jël jaka yow aduna ya, yow fi lu metti bu amé après banex mom moy ñew pourquoi do surmonter les épreuves de la vie ki boo ko jabar rek muy daanu ay gangir mais ba wax ak jaka mấy bác ăn gần chấm Numa ma sama mpañ d'accord dina ko dégg inshallah te dimbali ma sama nijaay bu ko fàtte ko génn ma ci ay mbiram góor bu yor jikoy jigéen tuut dama doy ci ay mbiram may wax ni tamit sama nijaay kon moom ba léegi il change pas changé kooku bu changé dafa dee léegi xamal moo ko dese ne dama lay doxaan ci kër gi comment billaay mais tonton maako dafa dof wala lu ko dal yow tonton maako jabaram di sama umpaañ yar la ci biir kër gi tonton maa ko war la xoolee beneen bët amul leneen lu mu lay xoolee naan da lay doxaan yow. sa xarit mën na xoolati ba jàmm. saay peut-être mu jàpp sa coppati kaay ma may la ko. yéen bu leen jógee Europe da ngeen yaakaar ni tout est permis que ni mën def lu leen neex que xale yu jigéen ay marchandises. daay li wax man bi ci daal man foowu ma foluwu ma. et pourtant sama kii sama gaañ la maam moo ñoo nekkandoo ci kaw bi nga koy gisee du gel du waxaale du dara. paa bu toll nii. je t'assure. xam na ngeen def koy faj ji. baal nga wax maa ngi jëw sax tax jëw moom bokk bu ñaaw baaxul. baax jàpp si dégg wax yow lan la tiital nga ma waay yow. ana njaago. lan la loo koy doyee. yow lu sa yoon. yow bi nga xamee ni sama yoon nekk ci ko loo ma koy laajee. yow mii. am na affaire. loolu ki nga taxaw kan la. Ndiago xam nga ah, tonton Maako. sa tonton ah. bi. waaw tonton Maako. waaw. jabaram moom lañ ko tuddee moom moo ko yar. waaw. elle est bien partie hein. ouais je suis pas mal. <laughs> mais pourquoi ñu koy woowee Niao? non Ndiago c'est juste surnom la. mais elle s'appelle Fat Fat Kiné Gomis. yow iya, su turundo bi la bëgg wax ak mom sama ban turando. way wax bu ndaw mu réew mi. yow lan nga war a jot bu ndaw. ay koy laaj muy jéem a bu ne lan moko dal bam lay jànni na sa xol sedd loolu lu ma la léegi léegi. yow rek laa ciy sedd. mais bu dul woon ak yow am fu ma jaar ak bu may bëgg man ma damay ma elle me doit du respect waaye qui est boppa la dama la wax

amoo jabar c'est quoi ton problème lan la. booy foofu baa ngeen teg bët sama 40 ans yi quoi non si c'est la question que je me pose am na ñu fi am 60 ans 70 ans amuñu jabar. mais mënul ñàkk mais mënul ñàkk quand même mais destin la suñu borom ko dogalee dafay am. je pense que lu war a am rek. nii lu war a am la. jabar su ma ko takkee maa koy gérer sa bopp maa fanaan doog moom maa koy toppatoo mais pas yow su ma paree bu takk jabar rek incha allah t'inquiète je vais le faire mais man kenn du ma teg pression.

waa bu ndaw yow kan nga yab. Bajan ci la. maa ko ne daf la doon laaj njaago nga di ko jànni. bàjjan tonton maa ko moomu njëkk a jànni ma fay. yow loolu mooy sa wax maa ko dafay sa morom. bàjjan am na loo mi ngi xew ci sa biir kër gi te xamna ni kenn du la ko saña wax mais man dina la ko wax. lan moy sama xex sama kër sama kër gi tayeguma ko. gis nga tonton mako mayul jàmm ndiago mayuko salam chaque jour da koy def ay avancé tonton mako doxaan rek lay def. li nga wourna la. badjan man dag ma yar ci ay fait li la wax ni lolou mo am. ci kër gi laa bokk te am na loo xam ne su ma ko xamul mënu ma koo régler Sowru c'est quoi son problème lan moo tax Sowru ragal jigéen ñi. Njaga. suñu papaam jigéen moo ko rey papaam dafa takkoon jabar jabar bu mu takkoon moo sotti ci sama cin posen mu lekk ko loolu moo ko yóbbu àllaaxew lii rek moo tax sëwru boo tuddee jigéen àddinaam yëpp jaxasoo yow nag yaa ci mën a wax ndax yow la am te ku ndóbin rey sa maam boo séenee lu ñuul dangay daw li nga am ci moom kenn amu ko ci loo ci mën rek dañ ci wax dëgg loolu de ku mu dara mën nga ragal jigéen mais aussi yaay sóoru faw moo xam ne du jigéen ñëpp a yam li ma lay dénku mooy nga wax ci ndax jabar te ñàkk gis nga kër gi ni ma wéetee bu ma xëyee maa ngi kottu kottu lu nekk maa ngi koy def bu takkee jabar indi ko nag am ay tout tank xale yi nekk fii ci kër gi ñuy fo di ma di len bàmbaane sax waaye nii neexul hmm. loo ci man rek wax ko ci def ko ci yalla baax Tata Marie-Jeanne oui ma ñëw vacances walla dangaa ñëw pour toog définitivement non non dafa am doon gëstu mais léegi nag am naa si information bu leer loolu laa bëgg lijjanti ba pare après ma soog a dellu bi ko demee gisoo sama yaay sa yaay si mës nañ gisante benn yoon si benn supermarché ànd ak sa rakk yi rakk kon man dama am ay rakk ah bon kon yow mosoo xam ne danga am ay rakk xanaa sama papa xamu ko sa papa bi ko fi sa yaay bàyyee depuis boobu nag la feebar ba léegi. ci ni mi ngi doon waaj wér. sëru booy am na loo xam ne ci àdduna kenn mënu ko fàtte. et booy sa yaay wax na ma lépp sama yalla lu mu expliquer pour yëpp mu bayyi sunu góomu xol sunu misère loolu kene mënu ko expliquer kenn copain jigen mo yak suma jang jigen mo yak suma aduna Ανάγκη πepari semua bak. sama papa yi mbokkam takkal ko jabar mu ñëw sëy si kër gi fekk ñu suñu jàmm ak suñu salaam waaye mu nekk soxna su yées ku bon ku yàlla rëbb bayi ba sama yaay te toggal sama papa supp tibbal ko ko si bool mu jël liggéey tàbb si booy sama papa lekk ko crise sama papa dee ba jeex amatuma ay rango sama tànk boobu sama mbokk ñoom papa la ñu jël lépp xëpp ko suma yaay sama doomu tante bi mii naa leen gis naa suma yaay jël sunguf tabal ko ci ñam bi waaye kenn gëmu ko ñun waxu xale la dañ ko ko wax loo kan moo koy wax loolu kan mooy wax loolu innocent boobu comme que dam bi seen bokk la woon ñu jël lépp xëpp ko suma yaay tuumaal ko sosal ko tam ko yàq dërëm ba xayul woon foofu mu dëkkoon billahi olof njaay jumul billahi wallahi olof njaay jumul moom mi ni jigéen soppal te bul wóolu loolu rek mooy dëgg booy mën ma sopp jigéen booy mën ma bëgg jigéen ma wóolu jigéen yow lay déglu. lan ngay déglu ci la. mais si li ma lay laaj. mais yow man dof naa bay doxaananteeg njaago ci kër gi ah man lu may doyee njaago njaago temps yi yépp moo may kolaas. ma bañ lu ñaaw moo tax waxuma la dara. et puis sax yow kan moo la fen fen yi. kan moo ma koy wax bu ndaw. bu ndaw man lay fenal man man man man dinaa ko jëflanteeg moom bëccëgu nar a kam xamuma sax. waaw baax na kuy làqatu li baan bi bés boo tëree fee feeñ. mais loo foofu. li ci kanam rawul bët nañ dem rek. sama yaay lan laa ko def lan laa ko def fa mu dem bàyyi ma. nan la mënee gis beneen góor mu jaral ko mu bàyyi ma man ak sama papa man de bokk moo ma gënal ñàkk ana lan la ma bañee duma woo duma nemmeeku duma toppatoo lan laa ko def Boy. oui. est-ce que est ma essayer ak booy bi. ban eh, xam ne déggoo li ma la wax. muy Ndiago tukulóor séeréer laa ci bokk yemale. jigéen laa duggul. ñoom ñëpp ñoo yem ay criminel lañu. xanaa déggoo ma la soppal bu tëb bu wóolu. imagine su ma la waxoon ne ñoo yam góor ñëpp a yées góor bon yow la wax <laughs> ma la man exemple la yéesuma doxuma yàmbaar naan ma sàngara agressé ma violé ma xam naa may kan. mais jàppal ne ni mu amee exception ci góor ñi noonu la amee exception ci jigéen ñi booy calme toi yamal et puis bu dul dara góor nga quoi. Kapay gëmal li nga gëm jàppal li nga jàpp ma gëm li ma gëm jàpp li ma jàpp maa ngi sama salaam munoo fexe ba génne ma ci li ma nekk maa ngi sama jàmm maa ngi sama salaan bul ma perturbé booy jàpp rek jàpp si nga nax sa bopp mën nga nax yaay mais pas man munoo ma nax au final ce que j'ai bien compris mooy da nga ragal rek hmm, da tàppat kese moo la jàpp d'accord c'est bon oui merci beaucoup c'est gentil loolu dara ragal nga. oh booy. e njaago ye yow fan nga nekkoon ba waxtu bi damaa jàngi woon. jàngi man da ngaa foog ni man xaw ban heure ngay laaj. damaa demoon ko tamari fa nga ba heure fa def. yow baax na dinaa lijjanti sa affaire. yàlla ci sa yoon. il faut mu wax la yaay kan. faut ma wax la ni may sa yaay mais xaw ma kañ lañ doon ak naka lay doon loolu rek moo ma jaaxal ci sama doom oh ma fi chérie

yow yaa wax sa bàjjen ni man damay kolaas njaago waaw man maa ko ko wax dafa amul wala mu ndaw xale bu yaree di ko dafay moytu mag mu fekki <laughs> yow tootoo maa ko loo fekke li ma fekkee su ma la ko waxee dinga nga xaru <laughs> yow mii <laughs> waxal yow laay déglu moo jotagul waaye bis bu jotee man dinaa la ko wax lu jarul yàkkamti. eh maa ngi lay xaar. imbécile. alors jeune fille glace bi nag moom man ma len di offrir ben pot caramel bo xamante sama mélange bu bees la et kooku bu ndaw rek mo len ko meuna jox alors rendez-vous vendredi bu 17h jotee xam nga fa la len di jox rendez-vous ci planade bu grand théâtre ñu dal di pello bam neex. ya booy ya lan la lu xew. dara. yaay xam nga man man ma supporté di gis say rangoñ lan moo xew ñu dëkkandoo bi asu seedi lu ko bi laa jël di ko yóbbu ci bitig bi di ko jëndali tàngal mu fekk ma fa lu ko waxul daf ko fàtte xas bu nekk xas na ma ko nee boo bëggee sët da dem sa doom juri koñ bi lu nekk lañ may wax lu xas bu nekk dañ ma koy xas ci koñ bi léegi xas bi ba kañ kañ la xas yi di jeex. yaay booy yaay booy dalal wéruloo yaay booy man yaa ma gën a suma bakkan xam nga ko bu baax li koy firndeel gis nga bi may dem Europe ci yoonu suuf bi laa jaar. te lu nekk mënoon na ma dal ma boole lu ma neex ak lu ma naqadi boole xiif mar ak tumuraanke ndax lan dem liggéey tekki ñëw taral la sagal la sargal la sa kanam nawee yëpp yaay booy wax ma loo bëgg wax ma loo bëgg ma li ma bëgg xam nga ko mooy nga takk jabar Jimmy, lu bukan kau tit. Lu tuh cái tit kayak kayak kayak kayak. Jam lagi lah boy. Jam lu kamu kau cerita kamu tuh masalah. Nanti tuh sal. Tahu boy. Kamu itu gay. bao nhiêu anh, Dafa pun bagunya anda. Fan? Dama bagunya dem seti boy jago. Ban jago? Mau boy dengan tahu langsung ke? Jago? Wow.

jaago bàjjen sa papa daf ma la tuddee seen yaay dem France bàyyi leen sa papa jox ma la ma yar la sama kër gi yar bu rafet nga nekk ku am fula ku am fayda gis kenn mësu la dégg ci lu ñàkk fayda te dafa am lu ma lay laaj te nga tontu ci franchement. Badiane lan moo xew. Diallo dama nag sama jëkkër. Badiane lan mooy

entre nous quoi yow ya boo demoon ba toog boobu loo koy wax. Ya? doxaankat bu mag bu mel man. non vas-y loo koy wax. su ma yeggee ba nekk li tax tax li tax tax di yëngu lu nekk lu ko yëngu ëpp doole sàcc nga sama xol jël nga sama xel te xolal ni nga xamanteni petax non la ko bëggee bref ginaar bëggee ko cox non la la bëggee te ba mu wuyuwul musiba dal ma doxaankat mën na weesu lii doxaan mën na weesu lii mais booy suñu xaar yu yàgg booy foo ma formaté waat la et puis sax am na benn xale bu may doxaan fii temps booy moom laa bëgg a takk ñaareel. takku lan. ñaareel. ñaareel lan présenté la ko tafta. bu ma ko présenté mais yow xanaa da ngay xaru balaa la expliqué papa naan da ngay dugg ci deuxième femme polygame moom d' accord moom si mës a d' yi ngay wax laa fi gën a bañ fooyee ma ko laal wax. polygame dama mukk ci et je veux pas te perdre est-ce que j'ai été clair. Diago fan nga jëm. Badiane damay tonto maako mu toog nga toog su ko ñu leeral lépp. Diago loolu jaru man gëm naa la te gëm naa say wax man xam naa lépp loo fi wax dëgg la man xam naa ne sama jëkkër.

maa ko mënu la dara te gis nga dafa am loo dafa xam ne duma ko seetaan te mi seen maa koy lijjanti. comme ça waaye na pour saytu xale bi léegi daal yéen li may ñaan rek mooy na ñëw ànd jàmm te nekk say kat loolu loolu moom t'inquiète maag sawru ital nañ xamante ca jafe-jafe la su ma diggante ak moom dafa sincère li ma yéene sama bopp rek laa ko yene bu bu bi macha allah sama xel dal na ci moom tey na et puis yaru na macha allah man kay len rek laay craine mooy nañ ñaan yàlla rek xale bu nangu parce que xam naa aussi tamit du yomb a déedéet yomb yom bu ko sax sentu lu yomb sax baaxul lu yomb mom bu len ko sax sentu yow dal lo ci man def ko ci wax ko ci su ko defee man Não não não. Não gi rek. ñaanal ñu Não, yal na yàlla yombal Não ñaanal rek incha allah léppay baax incha allah. yàlla está? bu leen ragal está? dégg nga. incha está? dinañ ci déglu está? ndaw xale bu está? di ko dafay está? mag mu fekki. está? <laughs> tootoo maa ko está? fekkee. li ma está? su ma la está? waxee di nga está? <laughs> yow mii <laughs> waxal está? laay déglu. wax está? moo jotagul. waye bis bu joté man dina la ko wax jarul yakamti eh ma ngi lay xaar mais tonton mako lan na ma don cax noonu li il faut ma wax ak sama bàjjan li mom amna rapport ak sama yaay amna rapport ak sama papa juumu sama bàjjan amna luma xam te waxuko Ndiago dama nopp sama jëkkër. yàlla yàlla gaaw may jëkkër yàlla na ma yàlla gaaw may jëkkër ma génn kër gi abal leen. faal la ku ñëw rek nga dàq ku ñëw rek nga dàq ko barki ni gomis la dal ak yaa ko yóbbee sa bopp xale bi il faut ma takk ko il faut ma takk ko même bu dul dara sax gaaruwaal yi ñuy gaaruwaal sama yaay ci koñ bi mu dakk ndax ñi koy wax lu ñaaw gënuñu ko te mënuñu ko mais nag euh, balaa moo koy takk il faut ma tester ko aussi il faut ma tester ko xool ndax dafay fréquenter sëriñ ou pas ndax jigéen bi fréquenter sëriñ du ma dugg ci yow ben yon di tay la suma bakkan te nag bu ñewé maru criminel la criminel la comme suma tante Futur kay wala ma wooyu sama bàjjan jaru ko lii rek laa doon jox am lii ko laal la mais lii ndomba la laaj ma lii la la de dama ne la lii pour lan la lii pour yow la dama am sama benn sëriñ xaritu sëriñ bu baax boo xamante ne nii dafay ñaan pour affaire jàng ñu bari moo leen di ñaanal ñuy réussir ma yéene la ko ma ne xaaral ma ñoo defaral la ko am jëlal takk da daal di réussir xanaa yàkkamti woo réussir tonton Maodo man lii nekkuma ci affaire bi sëriñ ak gàllaaj nekkuma ci yooyu et déjà maag yow sequñu ko déglu bu baax sequñu ko génn sama néeg wala ma woy yaay choisir ba doo ko jël nii génn ci ah baaxul. lu ko jëlee. mais kii ban genre nit la. de man dama ne woon naa noppi rek xaar balaa ñu naan damay jaxase. Mariette finalement. woy. ci quoi. comme gis nga ma sama yow toogal nga déglu ko. dina la wax eh, leer na dimbali ma rek bu fi jàpp match de damay àggale sama film bi. est-ce que tamit yow tamit bis mu ne yaa ngi ci télé beeg football doo ma bàyyi ngir yàlla man tamit ma ñam ah léegi mu jeex yàgg. ñaata temps moo si def. léegi rek mu jeex. finalement est-ce que doo ma joxaat sama xaalis dama xam ni man ma jug def lu baax ah mayee sama xaalis joxe billet màkk mar chaque jour ñu tek ma ci tambu ya ngone bi di ma kaar joxaat ma sama xaalis ñep am jamm ba toog. yaay boy est-ce que li ma lay laaj ba tey tontu ma ci. waaw doo. est-ce que fii ci Sénégal amna jigen bu musul dem ci sëriñ. Eh, xanaa man mi sa nday yow amate nga jom yay duggati ci Amina c'est-à-dire kii dama xalaat ni daf ma jox ma naan kii daf maa liggéey. waa kii fuyul mana baate. danga maa gëmu tam. non non non la de. ah danga maa sañ wedi. weddi damaa gis nga di ma xoolal ko xoolaat iya, di. yeewu yow taxuloo may wax. ah à part yow moom ma tax di wax beneen jigéen kay budul yow man kay xam naa ne fekkaan paale marabu. man sama xam. nangul sa yaay njottal ko ba ngay gis leneen ndax nag nit dafay am xel bu rafet daal yàqul dara waaye gis nga sama dem bii dëgër na bopp trop man nag xale bi dinaa ko seeti mais tamit naa ko tase de naa ko tase xool ndax day fréquenté ay sëriñ bu dee day fréquenté sëriñ moom man nag moom du ñu am àllarba alxames ba lépp lu mu laal man de bañalu ma la ko nit ki balaa ngay dugg ci moom danga koy xool xoolaat ko loolu sax suñu diine daf ñu ko may mais nag test bi bu mu yàgg de bu mu yàgg de ndax lu yàgg rek seytaane am ci loxo. Badiane bàjjen bàjjen fan ngeen tollu ci recherche yi. yan recherche. recherche pour gis sama parents biologiques. ma ngi ci. bàjjen pouponnière bi xana amul won registre. pouponnière bi registre yëpp a Badiane nga yaakaar ni tonton Mako moom xamu ci dara. xamu ci dara. maako jooy maa ko maa ko lu xew ngay jooy lan la ah looy jooy wax ma looy jooy noppi na. man kañ laay gis sama taqaneer ba ñu sëyee ba tey ni mu yàggee mënuñoo fexe ba am doom man lan laa def yàlla ba yàlla def man yi. eh maa loolu da ngay jooy gëmal yàlla. waaye bu dee loolu ngay jooy man nan laay def man mi toog musuma gis doom nag waaw loolu dara loolu jërul jooy waaye li xamul nu ñuy def noppi nga bàyyi jooy ñu tëdd ba suba nga ma kan nga bëgg ma may la ko ma ne ñu tëdd suba insha allah nga wax ma kan nga bëgg ma may la ko dafa guddi nga bàyyi jooy nañu tëdd ba suba waaw nañu tëdd ba wax la kan ma may la ko wax de maa la ko wax nañu tëdd ba suba dafa guddi waaw baax nañ tëdd ba suba yaa wax ni ku ma bëgg rek di nga ma ko may. dinaa la ko may bu suba incha allah. waaw kon baax na bu nañ tëdd ba suba bàyyi tamit. Ah? waaw baax na ma jiital nga ma sax. kinne xam nga lan moo jaar naka ngay juddo di dundu mag ba am âge bi ma am ni xamo kan moy sa yaay xamo kan moy sa pap bu ndaw yow yaa ma tane yow lu mau dee yaa ma tane man sama yaay ngi France France bu jege ki faalewu ma dafa def comme man dund ma man ak sama papa dem gis nga àddina bi képp koo gis rek am na ay jafe-jafe yu mu nekkee ça moom c'est vrai àddina moo mel noonu mais man yow moom su la amul woon mooy xëy rek xaru. xaru. léegi soo xaroo man fan laa moo ma jaaxal. man yaay sama lépp. xalaatuma sax un jour sama dund sans yow. tontoo Maako ak euh, Badja kaay ma la maa toj yàq ma salaam yi. ah génn na ba pare. maa ko wax de xam nga man lan moo may arrangé am jëkkër dem sëy bàyyi leen seen kër. kër ñan njaago seen kër yéen. xanaa booy dem nag may yóbbaale. yóbbaale fan. yow sañ ngaa dem sëy bàyyi ma fi. yow de xam nga ni fu ma jëm yaa nga fa xalaat ma fukki xel xalaatul dem bàyyi la fi gis nga man ak yow picc ak peel yaa ma gën a loo mën a am ci àdduna. na dangaa tiit ci ay nelaw rek. yaay booy dama gént gént bu raglu. gént bu raglu lan gént noonu. dama gént sama papa ñu posone ko mu nekk sukuraat bu méttee méttee méttee. yow loolu bi mu amee bi muy am dafa fekk nga dem jàngi fekkee woo ko. gént naa ko de gént naa ko. sëwru benn boroom xam-xam da nee gént ñaar la li nga bëgg ak li nga ragal dangaa boole li nga bëgg ak li nga ragal. ci lan. dangaa bëgg jabar te ragal sa papa yaa booy yaakaaroon di tattal la bu ma yàlla di wan pour li ma bën a ma arrêté ko ma teg ko ci suuf Sëyru àddina amul benn solo jógal nga dem nga j'avais juste envie de te voir avant dem dit Yo, mon franchement dangaa mën a tooñ. pour nga gis. Tu as dem te moo gën a wóor balaa ñu lay que di la agresser. Tu yo, bi toll ni man tu agressé. Ayo, ah. Tu nga ah. te dal, mo que te mo gëna dal xel. ah bu ne lool mo dal sa xel yow kon ma dem disons bonne nuit. au revoir. Buen video, David. Chao. ay ñun kañ la suñu góomu xol bi di wér lan laa def yàlla ba sama àdduna naqari nii ay ay at a ngi nii mënumaa fexe ba faxas benn problème sama doom kañ lay sëy jafe-jafe yi kañ lay jeex yu metti na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 sun borom yow mi nga xamante ni yow yaa man maa lay ñaan yàlla nga ma wan ma gis ndaw si may bëgg bu dee gën na ci man yàlla nga def mu àntu bu dee gënul ci man yàlla nga def mu gàntu ci barke Seydina Mohamed ci barke laa ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Mon amour, chérie. Jógal une boisson. waaye foo jëlee boisson guddi gi. waaye dama ko jëndoon chérie. fàtte ko Je suis tëdd ba yàgg rek sama xel dem ci ma ni xaaral ma servir la ko. waa chérie neex na de. Ah, lii mooy jet set. Hmm, jet boisson bii. Hmm. boisson bu bees la. mais neex na neexa goo xamante ni man xam naa ni jéggi na dayoo. ah jet set de tarkal la. te waxtu wu la neex. Hmm. mën nga koo naan. ah heure bi ma ko joxee de neex na. di dem ma ko yeewee la ko yeewee te am na variété yoo bëgg rek am na ci. jet moom neex na neex na neex na kay waaye nag dafa am lu olof Ndiaye wax de chérie. olof Ndiaye lu wax. nee na gor ca wax ja chéri hmm. man de lu ma wax dinaa ko bëgg naa ko def hmm. waaye jaamu pexem yàlla ak ndogalam mais yow yaa ma ne naa xool ku bëgg nga may ma ko man kay maa ko wax chéri waaw léegi man jaago laa bëgg may ma ko yow xana du yama wax fi ne njaga yow nob mo la nop ma waxoon waxeet waaye yow sa da la jitu ba nopi nak waxante deug njago yow juroko njago bokku len dara dagan na ci man ma takko ta xale bu ndaw la mën naa suñu borom defal ñu ci njabot su boobaa ti ñépp lay neex te njaago amul far amul waxaale ndax mosu fee indi góor te yow déggal na la foo ko yem loo mu yem fa loo ko def loo mu def ko mais waxal ak moom boo ko waxee dina ko nangu wax ko ko nga ko kon yow njaago nga bëgg njaago laa bëgg dinaa la production remercie ses partenaires. chef. On t'aime, chef Aïda. Moutard, chef Aïda. mal 7. Tapis rouge, y'a que le bégal Sénégal, qualité. J'ai de meubles, fiche tapis rouge, d'ailleurs, bado wahale. Yeah. Jet set simplement waouh! le soxla électroménager ñu jàppale le établissement takku liggéey góorgóorlu Diaw et frère, frère et frère, y'a du jàmm ci établissement takku liggéey góorgóorlu jaw et frère commerçant bu mag bàngook lépp lu jëm ci import export rawatina nag ay meuble yéen waa zak bu mbaaw yéen waa sikap mbaaw yéen waa Caaroy Azur lépp lu ngeen daan jëggaani biir ndakaaru am na fii soxlaatul ngay paas di dem ndakaaru soxlaatul ngay paas di dem fenn lépp loo soxla am na fii ci sikap mbaaw da ngay ñëw xool li nga bëgg ñu livrer la ko xam matériel électroménager ménager wala salon salon yu mucc ay salon yi ngeen di wër ci àdduna bi yëpp am nañ ko ci qualité supérieure nag dañ lay jaay salon ba noppi jox la table jox la moquette jox la pot de fleur xanaa ay wax day jeex lii de boo demee ndakaaru doo ko am yaatoowuñu xol noonu ni ñun matériel première qualité lañ lay jaay li nga bëgg rek la ñu lay defal seen mbokk émigré nekkoon Espagne ñëw investir fii ci Sénégal ne day jàppale réewam di góor góorgóorlu képp ko xam ne tamit am nga salon bu màgget pare nañu pour nga ñëw duggal ko ñu jox la bu bees dañoo pare pour dimbali leen mën nga ñëw ñu jox la salon nga duggal moitié li ci des nga fay ko ndànk Dank. xana kay ñun gor gorlu xana kay ñun ñoy dimbali njabot gi xana kay ñun ñoo bëgg ngeen am lu baax bu dee télé yi tamit noonu garantie dong lañu lay laaj livré le ko à domicile place bi mi ngi nekk ci rond-point EDK bi ci ginnaaw hôpital bi villa numéro 923 jano ak mosquée vert blanc woñu ci 78 012 84 75 wala nga woo ñu ci 77 734 36 90 wala 76 902 84 75 livraison à domicile Kër Massar ak li ko wër lépp loo soxla ci salon loo soxla ci électroménager ñu jàppale la dimbali la taxaw la établissement takku liggéey góorgóorlu Diaw et frère Diaw et frère yaa baax kenn du yow. tapis rouge yàgg na bégal Sénégal ci qualité te ci tabaski bi ku fi jënd ay meubles ñu may ko ay cadeaux. La grande surprise vous attend. Nous mettons en solde nos chambres à coucher de modèle royal. Tapis rouge, mon Sungen jende, chambre à coucher VIP ñu tégal moquette deux pose pieds voilà descente de lit avec deux chaises en bois.

Achetez un salon à tapis rouge et une moquette vous sera offerte. Et avec cette promo Tabaski, Tapis Rouge vous ouvre ses portes tous les dimanches. Waouh wow. Def c'est une commande sur WhatsApp est 77 730 87 87 Je de meubles. ci Tapis Rouge day neex